أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أحسى بك وزلت حال من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمزات سياتين أو أعوذ بك رب يحضرون الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا هدى أبدا سيدنا محمد والأهل وصحبه زوين والي والي إلى بسنة يا رجي سيدنا تبني لين دنوي دير زيار جيت سنوي دير زيار بسري متعب بسيط يعني يعني سنبنا قد بلي برمنا ميكلو كان دكوني تعلبي منك سنعم دمود من فعل noo lay ñaanal baax suñu bunt ci maam si Ibrahima Fall Alaaji Abdou Aziz Mamadou Safa yal na sa borom yokk leem tam si barkeem ziar si Moustapha mboolem njabootu Baye Fall gi yëpp di leen ziar mboolem mbokk yi nga xamante ne saa su nekk ñu ngi topp ci waxtu wi ci seen émission yóbbalu koor di ko ànd ak seen mbokk soxna Adama Diop tey nag ñu indil leen doomu aadama bi ñi nga xamante ne moo koy jariñ fii jariñ ko fañ jëm ndax yonent bi salaay salaam wax na ni iza maata ibnu aadama in xatta xatamalhu إلا من ثلاث صدقة جارية أو حلم يتفع به أو ولد ثلاث yutafa'u mu wax ni doomu aadama bi kat bu faatoo li nga xamante ni moo koy jariñ rek mooy jëf yi nga xamante ni yii la fi bàyyi muy moo xam mu tabax fi jumaa mu tabax fi daara joo xamante ni wala barab boo xamante ni nit ñi dañ fay jëfandikoo ci lu baax moo xam lu mel ni wàllu jumaa wala daara nit ñi fa jànge mboolem yiw yooyu yëpp luñ fa def da koy fekk fa nga xamante ni fa la tëdd wala tam sarax boo xamante ni daana ko saraxe fii bi muy dund wala boog mu bàyyi fi doom joo xamante ni ju koy ñaanal la ñaan yoo xamante ni da koy fekk bu fa tëdd kon doomu aadama bu ci nekk li nga war a fàggu ci sa àdduna mooy li nga xamante ni boo lëgee boo demee yow ma xiyam buñ fay jëf di ko fa bàyyi day nekk ak tawfeex ci yow ba ci naka zaalika tamit boo fi bàyyee bu caaxaan yi itam lu luñ fa def safaan wuñ fa amee rek ci ay mbugal da lay fekk tamit yow fa nga tëdd kon moo tax jaam bi buy mbëbët wala buy bàyyi na fexee bàyyi fi loo xamante ni lu mu jëf rek bu buñ koy fay ci yow mu fekk fa mu tëdd tey jii sa doom boo fi bàyyee nga am doom jàngaloo ko yaroo ko yarub diine soo fi bàyyi ko kan moo lay ñaanal waaye su fekkee ne sa njaboot bi nga am jàngal nga leen alxuraan nga xamante ne boo liggéey yow ma xiyaam moom dong moo fay jariñ boo fi bàyyi ko dinañ la mën di ñaanal di la mën di fàttaliku te loolu taw fee rek nga ci am ndax dalay fekk bu fa nga nekk par rapport ak ki nga xamante ni yor na doomam jàngalu ko yaru ko te boo liggéey tamit na xam ne dañ koy laaj ndax kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyyatihi bu ci nekk boo liggéey yow ma xiyaam dinañ la laaj ni nga doon sàmm naka nga ko doon sàmmee waajur góor yi dañ ko laaj naka nga doon sa njaboot ah, bu fekkee dem tegoon na leen ci yoon bu baax ak njabootam maa ngi safaanu moom wàcc na ndax li ko war ci njabootam rek def na ko mooy utal na leen tur bu baax jàngal na leen bi ñu waree jàng waaye tànnal na leen tamit waajur ju baax teg na leen ci yoonu siraatal mustaxim kon kooku lu njabootam def ci safaan rek loolu du ko laye waaye bu leen ko deful rek mboolem lu def ci safaan rek da koy fekk nekk yàlla na kon doomu aadama bi li muy mëbët ci suufam daal kaw suuf na doon loo xamante ne lu baax la loo xamante ne boo lëggee boo ko suñu borom du fay du ci am du ci am lu ko métti ndax ku ci nekk boo léegi suñu boobu dina la taxawal sa jëf yoo jëfoon ci àdduna dañ la koy delloo kon nag bu dee jëf yu baax la nag a ah, xayru waaye bu dee jëf yu safaan tamit naa xam ne suñu borom moom dala koy delloo donte nag boo jëfee benn moom ci lu bon sa benn boobu lañ lay delloo ndax suñu borom amul lu bon lu lay delloo boo jëfee benn bu baax nag ñu fay la fukk kon nag nañ jéem di la suñuy jëf yor suñuy njaboot yar leen ci yarub diine bañ am complexe te pare say nga yor sa doom mu toll ci jàng alxuraan tey duma ko yow mu jàngi ndax day jàngi français ndax kon ay atam day day gaaw ab jullit war tam complexe li la suñu borom digal saa su nekk danga kaa war a ci sa njaboot boo defee loolu lépp nag yow kilifa yow waajur yi naa xam ne wàccoo sa njaboot waaye soo ko deful rek naa xam ne ndodd googu te ak lor ngay doon sa njaboot ndax jamono dafa toll foo xamante ni ku jàngalu sa njaboot ku yaru sa njaboot yaru diine naa xam ne yaa leen ndax jamono ji yàqu na de waaye jay ñëw raw ndax saa su nekk dangay gis mboon ñi day gën a yokk saa su ne nga gis te gi di gëna yok te lepp rek moy ñi nga xamanteni bañ leen wara jang jang luñ leen ñu dem ba nek mak di jëm am lu ñuy fortaatu ba tax ñu ne ci sank kon waju gu nek responsabilité ci ay njabootam na jël ndax bu fi juggé ñu mën di ko bayé xel bo défé sa njaboot lu baax bo légué saa bu fi juggé rek ñom tam lu baax lool duñ ko faté saa su ne yii wuñ def suñu bon da koy delloo fa nga xamanteni yow fofu nga tedd ci yow ma xiyam te tamit boy dem dañ la naan ah sa dom naa sa dom diw mo la yonne lii te lool bànneex boobu nga ci am bu dee safaan tamit mbugal yi foofu la lay foofu la lay fekk kon waajur bu nekk na fexe yar ak njabootam yarub diine waaye jàngal leen seen ndax bu jàng ni ku jàngul doo mën a jëfe sa diine kon daal loolu la ñuy waajur yi ñoom tam ñu tege ci yoon boobu ci njaboot gi tegee rek du am benn gàllankoor ci ci seen ëllëg te ku nekk da nga sàmm si ëllëgu njaboot kon tey jii loolu lañ leen indi loon ci seen yóbbal bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa